auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi suwaat ak yéen seen chaîne youtube bi di Firi Guent TV officiel ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel te di leen baalu àq euh, dellusiwaat ak yéen ci fan yi passé ñu ngi ci ak yéen ci vidéo yi nga xam dafay dellu ci les éléments de la nature Euh, ni ma ko waxee toujours bëgg nañu def ci ay vidéo ba lu ci nit gént rek dafay dugg ci video yi mu am réponse bi euh, def nañ taw def nañ géej def nañu lépp biddéew weer jant asamaan montagne lépp def nañ ci vidéo ci les éléments de la nature xëy na buñ ci fàttewul dara luñ ci luñ ci fàtte rek danañ ko delloos incha allah tey dañ ñëw ak yéen ci ngelaw ngelaw lan lay firi ci gént euh, ni ngay njëkk a ngelaw ngelaw dina ñëw léeg nekk ngelaw lu woyof loo xam ne neex na ànd akum péex léeg-léeg ngelaw ñëw ànd ak taw bu bari wala ngelaw ñu ñëw du ànd ak taw waaye nekk ngelaw lu bari doole ànd ak poussière wala léeg ngelaw ñëw di daane ay garab di daane ay mur indi ay jafe-jafe ci yii lañuy sukkandiku maanaam melokaan bi ngelaw li ñëwee ci nga la ñuy sukkandiku pour def interprétation ak yow mi ko gént ci ban circonstance la fekk bu njëkk bi ngelaw ci xale bu jigéen amoo jëkkër wala jigéen bu mën a doon amoo jëkkër moo xam mas nga sëy wala masoo sëy gis ngelaw amul poussière ngelaw nii ngelaw li daanelul garab daanelul miir deful dara moo xam ànd na taw moo xam àndul taw ñaari ñoo yem ci àtte baax na ci gént dana firi lan dana firi xéewal dana firi jëkkër dana firi bu la fekkee ci feebar dana firi wér ci feebar dana firi njàqare xat-xat yu dañ ci yow la ci fekkee jigéen nga amoo jëkkër danga gént taxaw ci diggu yoon wala ngay dox ci digg yoon mu am ngelaw lu bari loo yëg ngelaw lu tar lool nga gisi poussière gisi ngelaw baaxul day firi fitna ci yow baaxul ngelaw loo xam ne da nga sentir dugg na ba ci sa biir kër wala sa biir néeg nga sentir muy dam muy yàq ay kaas di daane ay di yàq ay mbir ci kër gi maanaam adawaat yi nga xam dafa nekk ci kër gi mu di ko yàq bay firi problème xat-xat torof torof ci kër gi nekk ak ci yow kon jigéen bu amul jëkkër li nga jàpp ngelaw fu mu amee lor ngelaw du tar di yàq ànd ak poussière baaxul bu ngelaw lu ñëwee àndul ak poussière yàqul dara nekk ngelaw lu neex mbaa mu ànd ak taw baax na noonu la ñuy firee gént dégg nga léeg nga gis ku ne yii ngelaw kay moom baaxul ngelaw kañ lay bon ci gént mooy bu ànd ak poussière mbaa mu yàq ngelaw ndox ñoo yam buñ dee yàq rek anaasil anaasilul arbaa yëpp noonu lañ koy firee ci gént ndox safara ngelaw fu mu àndee kii la day yàqu jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu sëy am nga jëkkër da nga ngelaw lu métti lu tar ci biir gént ba yaa ngi tiit ci biir gént gi ngelaw li métti na ba da ngay tiit ci gént day firi problème ak i xat-xat euh, ci sa kër bu fekkee nag ngelaw li dafa nekk ngelaw lu woyof bariwul doole yàqul day fi yu tolof tolof xat-xat njàqar yu dëdd ci yow euh, bu fekkee ngelaw lu woyof loo xam ne yàqul indiwul benn problème fekk la ci ay problème ci sa sëy day firis problème yuy jeex ci sa néegu sëy jigéen bu nekk ci néegu sëy ngelaw lu bari ci sa kër da nga sant ngelaw li mi ngi ngelaw ba fenêtre yaa ngi frappé ay yàqu-yàqoo ngi am day firi jafe-jafe xat-xat ci sa néegu sëy baaxul bu dee ngelaw li amul poussière amul dara yàqul deful dara ci jigéen buy sëy fekk na nga feebar dana firi wér ci feebar fekk la ci problème dana firi problème bi jeex dana firi léeg-léeg yëkkatiku ci sa liggéey mbaa yokkute ci yow wala ci sa jëkkër ngelaw bu àndeek poussière ci jigéen bu nekk ci néegu sëy dana firi léeg-léeg jafe sa néegu sëy comme ni ko waxee dana firi fitna ci sa kër wala ci société bi nga nekk gënu ci bu bu mu mën a doon da ngeen ngelaw lu bari loo xam daf la déplacé sax maanaam loo sax ñëpp ñoo ko bokk da nga gént ngelaw loo xam da laa yëkkati fi yóbbu la feneen ci ngelaw maanaam ngelaw lu daf la dem ba yëkkati la bokk na ci yi nit ñi di tiit ci gént mais baax na day firi yëkkati ko ci yow daraja ci yow jógee fi nga nekk ci situation dem ci situation bu gën a baax des fois dana firi tukki ci yow baax na loolu des fois dana firi bénéfice bu dee da ngay yëngu ci wàllum jënd ak jaay ci wàllu commerce ngelaw ci góor bu ànd ak taw day firi xéewal day firi wërsëg bu ànd ak poussière baaxul day firi tolof tolof ak xet-xet ngelaw ci góor nekk nga ci sa kër wala ci sa néeg ngay sentir ngelaw ngelaw lu neex lu woyof dana firi place liggéeykaay mbaa yokkati ci sa kër bu duggee ci sa kër walla nga sentir ngelaw luy frappé sa yii porte di yàq lu bari ci góor baaxul day firi torof torof xat-xat ci sa liggéey wala ci sa néegu sëy euh, danga nekk ci benn dëkk nga gént ngelaw loo xam ne dafa dugg ci dëkk bi ngelaw lu tar nga sentir garab yaa ngi daanu miir yaa ngi daanu yàqu-yàqu ngi am nga gis ay immeuble yu daanu ci ngelaw ci ab dëkk baaxul day firi fitna ci dëkk bi nga nekk kooku ñëpp ñoo ko bokk baaxul jigéen te jigéen ji ëmb ngelaw lu tar lu métti loolu ci sa biir kër wala yu mel noonu baaxul day fii jafe-jafe xat-xat ci yow ak ki sa ëmb su fekkee ngelaw dafa am poussière bu dee ngelaw la bu yam amul poussière amul dara dana fii euh, jafe-jafe xat-xat yu dañ su fekkee loru dana firi stabilité ci yow bu fekkee ngelaw da la déplacé ci barab yóbbu la ci barab waxoon naa dana firi yëkkatiku yokkute ci ñëpp ci jigéen bi nekk ci néew sëy léeg dina mu loree nag jigéen ak ku mun a baaxul jigéen ci ëmb euh, da sentir ngelaw li jëlee la ci situation wala yóbbu jëlee la fi nga nekk yóbbu la feneen day firi yëkkatiku ci yow day firi place liggéeykaay ci bu la ci fekk fekk wala ci fekk yokkute ci sa liggéey dana firi njarte mbaa bénéfice ci yow euh, góor nga amoo soxna euh, jàppoon ne dama la waxoon ci kaw ci ngelaw ci góor dafa laay concerné waaye lii dafa laaj yokk mooy su fekkee ngelaw li dafa la déplacé ci place yooyu fi di jógee fi nga nekk dem benn situation léeg mu firi soxna ci yow maanaam soxna des fois mu firi tukki wala place liggéeyukaay ci yow ngelaw fu mu ànd ak poussière ci ku mu mën a doon on li ngay jàpp baaxul ngelaw fu mu ñëwee di yàq di daaneel ay miir di yàq ay kër baaxul ngelaw ci sa biir kër baa ci sa néeg nga sentir muy frappé say porte di daaneel say bagage ci sa biir kër di fa yàq dara toji kaas baaxul ngelaw ngi baaxee ci gént mu nekk ngelaw lu woyof ba nga xam da ngay sentir air bu neex ci biir gént baax na lool ngelaw fu mu ànd ak taw te lorul yàqul deful dara baax na lool kon ñi may gis léeg-léeg ñu naan la ngelaw koy baaxul ci gént temps di rek noonu kenn du ko firee gént ngelaw dafa am ci yi baax am ci yi bon ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.